kontaante lool euh, xëy si fii ci suba ci banque islamique sama centre de vote euh, ñëw euh, def sama devoir citoyen muy bokk ci tànneefu ndawu réewi Sénégal ci élection 2022 amit tamit yaakaar gannaaw bi nga xamante ni def nañ campagne électorale fii ci département de Guédiawaye campagne boo xam ne li ko caractérisé mooy vraiment

yàq campagne électorale bi jur leneen mm-hmm. waaye nag garder nañ sérénité bi donte ànd nañ teg seen fulla ak seen fayda ba tey campagne bi jeex euh, wax dëgg yàlla dans le grandes lignes saa a été une campagne assez maîtrisée alors ay député la ñu war a tabb tey jile fii si diwaanu Géejawaay ñaar au total 165. Euh, yàlla def na ñu nekkoon maire lu mot juróom-ñaari at

ñu ngi wane ne wax dëgg yàlla njuumte gu rëy moo amoon ci élection locale loolu nag pour rectifier ko il faut que ñu am ay député yu am solo yu am taxawaay yu am xam-xam yu am fulla ak fayda nekkal fa askan wi mën a continuer liggéeyu jéggaani boobu ñu doon def indi fi ay projet yu mag ndax Guédiawaye mën a continuer sa trajectoire vers l'émergence